internet ci biir Bprod Média TV Bour Gueweul TV maa ngi leen nuyu tey nag maa ngi toog ak euh, Malick sàmm nee naa ko doomu Médina bi boo waxee Malick sàmm doo wax Médina te doo ko ci génne mu nekkoon nag un mouvement nouvelle président mouvement nouvelle vision bu Médina actuellement aussi dafa nekk yeewu askan bi nekk fa membre ma jàkkaarloo moom nii nag euh, euh, tu tungu na du néew ñuy nataal dama koy nuyu ziar ko mu nuyu bokk internet yi Malick ziar ma waaw maa ngi bu baax euh, di la def benn rectification mhm. euh, je suis le président du mouvement Nouvelle Vision mais maintenant je dirige un mouvement qui s'appelle Midna Vision Moderne. Mhm. Mhm, waaw may président Midna Vision Moderne bokkul ak Midna Nouvelle Vision. ok ñaar la moom laa yoroon. du boobu maa ngi woon du camp de Bamba Fall aujourd'hui j'ai mon propre mouvement qui s'appelle Médina Vision Moderne mm-hmm. et puis je de communication de Yewwi Askan Wi à mm-hmm. leer na ndax su ma la laajee sax boo waxee mooy gën a leer macha allah euh, avant ñi ñëw nag ci proclamation euh, résultat yi da nga amoon benn affaire boo dund avant euh, élection yi ñu defoon la benn agression si sunu naataango yi na xamante ni mooy Médina TV sunu confrère yooyu maa ngi leen nuyu de passage nga def fa émission ba waaj ba pare wàcc di ñibbi ñu agressé la lu waral loolu ak mun nga ñu expliquer le film de l' agression. non loolu je pense que wax naa si waxaat si quoi bu yàggee sax day soof quoi. Mhm. defe naa loolu dépassé nañ ko euh, li si waroon def nañ ko yóbbu nañ euh, suñu plainte police. Mhm. porte naa plainte man bi euh, yeewi askan bi nekk maintenant aussi porte na plainte média bi nga xam ne fa defee woon émission bi ba ñu ñoom aussi porte nañ plainte mais avec des preuves à l'appui mhm. am nañ vidéo vidéo yi am nañ ñu identifié ñooñu leer nañ xam nañ niñ tudd xam nañ ñu dëkk donc police nag moo ko desee yoon na si des moom euh, dina def liggéeyam. Mhm. xam nga bu ñu toogee rek ma euh, la ciy a leer mais puisque nee nga yoon moo ngi def liggéeyam foofu dañ fay jógee ñu ñëw nag ci élection yi ah macha allah ngeen gagné Médina euh, majorité bi waa Yewwi Askan bi ñoo ko apporté mais nag waa APR aussi ñoo ngi jublé ñoom itam nee nañu aussi ñoom ñoo gagné affaire bi nan la demee. waaw donc moi je pense que notre victoire à la Médina est une victoire c'est une victoire prévisible. Mm-hmm. Euh, xaw ma ku mu bett mais man bettu ma du dëgg euh, ñoom it waru leen woon bett xëy na ñoom ñemewuñu woon dugg si biir askan wi. ñemewuñu woon dugg si biir kër yi pour xam ni leen Médina Baye ñun dañu jël suñu temps dugg si biir kër yi waxtaan ak waa Médina mais nekkate ba ñuy dugg di waxtaan ak waa Médina waa Médina seen bopp ñoom ñoo njëkk a taxaw sax euh, bëgg a changer li fi ne. donc bi ñu tëjalee kër yi nekk Médina yëpp xam seen impression par rapport à élection yi boobu la ñu am confiance ne dañuy gagné. loolu moom victoire la déjà la victoire était en poche avant même le jour des élections le jour des élections n'était qu'une confirmation par rapport à la victoire. yan centre ak yan centre ngeen ngeen dominer yeneen yeneen kii yeneen parti non yëpp la ñu gagné 89 bureaux de vote yëpp ñoo ko gagné te bu si nekk gagné nañ ko plus de 50 pour cent. mais Malick yéen a gagné dëgg la mais euh, démb gis nañu conférence de presse waa ñoom itam ñoo ngi jubilé aussi. non loolu c'est sur le plan national ñoom dañu ne cohabitation bi du am assemblée générale assemblée nationale euh, génn une liste de trente départements yoo xam ne ne ñoom nañ ko gagné. donc boo seetee ki ko doon wax euh, si wetam sax amul benn responsable APR bu fa nekk dafa dajale mbooloom rek wax. defoon nañ ko en 2017 toog 2 heures du matin. génn waa APR ñooñu fa de. waaw mais na <laughs> ah, kon ba tey baax na gis nga li xëy na man damaa am yëpp li leen jigoon 2017 du leen jig bii xam nga bii li tax mooy euh, ñun dañu yor suñu ay PV téye ko commission de départementale de recensements de vote am seen i PV et la preuve ñoom dañu ne woon Sédhiou ñoo ko gagné man maa ngi sama téléphone. Euh, commission départementale bi résultat yi mu génn yi wane ne Yewwi Askan Wi moo ko gagné ñu ngi si liggéey bi. bu liggéey bi yëpp leeree di nga xam ne vraiment cohabitation bi eh, elle est inévitable quoi. Mhm. loolu la yàlla dogal. Mhm. Mm. mais lan ngay wax euh, ñi na xamante ne ñooy sa partisans yi nga xamante dañu bokk yeewi askan waaw moo leen wax rek la lutte continue parce que notre objectif principal du woon sax les législatives et législatives yi référendum la woon boo xam ne dañ doon wan euh, Macky Sall que ne euh, réew mi kontaan nañu réew mi ba nañ la. Euh, maanaam si sa bilan amul une satisfaction ba pare bi si ëppoon solo mooy que ne dañ ko doon wan ne ko waroo taxaw pour laaj troisième mandat tey jii wane na ne euh, élection yi passé quarante et pour cent la amoon si euh, élection locale yi bi wàcce na est-ce que sax am na trente pour cent loolu day wane il devient de plus en plus impopulaire kon man su ma doon moom damay jàpp ne dafa war a démissionner sax bàyyi nguur bi wala mu organiser ay élection d'ici deux ans du transparente vraiment bàyyi ñi war a compétir compétir mu arbitré génn honorablement su ko defee tamit su ko deful tamit ça devient de plus en plus pur parce que nag il faut reconnaître quand même que euh, le Sénégal a un peuple très euh, bu njëkk dañ jàppoon ne nit ñi dañ leen daan jënd mhm. dañ jàpp jaam wala euh, boo demoon si benn gox ñu ne bëri na ay ministre kenn du fa gagné mhm. léegi nag la ah, population. mais après am na côté boo xam ne dominé na fa de. waaw mooy ban na de. Ah, limal ma. mais yaa ngi yor résultat yi génn ma ko ma gën a leer du du ma du ma génn yëpp mais am na côté boo xamante ni ñoom am nañ fa doole de. di yaa ma wax dama ne li tax ñu naan euh, les régions phares xam nga boo jëlee lu mel ne Ndakaaru boo euh, boo ko gagné tu as 18 députés du dëgg boo jëlee le département de Dakar boo gagné tu as 7 députés léegi yow bu fekkee da nga gagné département départements yoo xam bu si nekk benn député indi ay Sareya saboté wu ma si Sénégal la mais ñooñu seen population population commune Médina moo ko ëpp. boo fa gagné benn député nga gagné boo si gagné lu mot vingt vingt député nga yam boo paree euh, suffrage bi bi ngay am foofu du conséquent de telle sorte boo ko euh, boo ko boolee mu mën la jox euh, nombre de députés boo am doole si liste nationale bi. tey dakaar bi nga xam ne gagné nañ si dix huit député Dakar rek li muy pesé si liste nationale bi boo xoolee dina engendré députés yu bëri si liste nationale bi. nga gagné Touba nga gagné Guédiawaye nga gagné Kër Massar maanaam la capitale tu gagnes à saint l'ancienne capitale du Sénégal on gagne à Thiès fi nga xam ne mu rox soow fa la nekk du dëgg ñu ne la mastodonte même de la coalition benn bokk yaakaar fa la nekk mooy ay Thiès nga gañe ko tia vi gañe Tamba yow région yu nganda ngand Louga tout foofu yëpp nga gañe ko waa léegi la moo des la moo des du dëgg loolu war na ne le peuple a décidé et le peuple est pour en changement radical aussi ñu gis ne aussi y' a beaucoup de part euh, yëpp yëpp beaucoup de partisans yi nga xamante ni dañ leen gagné seen gox yi ak seen centre waaw donc mooy li ma la wax rek <laughs> yi dafa def ravage quoi. du dëgg parce que c' est un mouvement c' est une coalition composée d' hommes honnêtes honnêtes intègres et qui font la fierté des Sénégalais aujourd'hui ñu composé yi du dëgg ba pare ñu fondé benn espoir si peuple sénégalais ba ñu jël leen jox leen euh, seen kaddu ba nga xam ne fu ñu leen jëmale fa lañ leen ni jëmale mhm. loolu rek la résultat élection yi firndeel mhm. la Yewwi a fait un ravage mhm. la Wallu aussi a fait un revage xëy na bon euh, li ñu daloon 2017 moom la ñu répété wul mooy que booloo bi ñu booloo ànd boole suñu doole euh, bi ñu ko defee vraiment gis nañ si résultat pour wane ne toute l'opposition doivent se doivent se réunir quand même pour mën a taxaw jàmmarlu ñi nga xam ne ñoo si nekk ndax mbooloo vraiment mooy doole. am na tam lu ma seetlu ñu bëri démb voté wuñu par rapport ak élection maire yi démb ñu bëri voté wuñu. non si nit ñi voté nañ xam nga dañ ko doon wax euh, si suba gi euh, ñu ne nit ñi voté wu man bi may dugg sama bureau de vote 9h euh, urne bi bëri na mm-hmm. cest à vote bi moo gaaw. Mm-hmm. vote bi li mu gaawee mooy que ne huit huit huit candidats la. Euh, du dëgg benn bulletin rek ngay voté boo ak vote yi nga xam ne kenn bu duggee balaa muy génn rang bi da doon gën a serré loolu moo doon nax nit ñi. du dëgg loolu la mais boo demee vote bi dem na ba presque à 48 pour cent donc législative ku xam législative législative 2017 yi vote bi 27 pour cent la woon. élection législative mooy élection bi nga xam ne mooy gën a bëri moo moo doon élection bi nga xam ne y'a moins de votants de tout le temps ku xam histoire politique da ngay xam ne élection législative toujours tuuti. que ay comme ay élection locale wala élection présidentielle. lan waaw d' abord di remercier sama mouvement di Médina Vision Moderne ak xale yi ma àndal jeunes yeex femmes yi nga xam ne fu ma jug ñu jug fii euh, ngir jàppale euh, parce que c' est un mouvement ki est affilié à Yewwi Askan Wi. ñu ànd ak man si campagne bi vraiment di ma soutenir bàyyi seen temps bàyyi seen yitte lépp si Malick Samb mu xeebu mi mais gën nañ ma sas parce que ñu ngi espoir si man. aussi di remercier directoire de campagne Yewwi Askan Wi à tous les responsables politiques de Yewwi Askan Wi à la Médina et à Dakar di leen wax ne liggéey bi ñu liggéey am na solo taxawaay bi ñu taxaw am na solo du dëgg euh, ba yàlla def euh, ñu gagné élection yi avec benn score boo xam ne vraiment. Euh, musul am ci si euh, biir Médina mhm. donc loolu ñoom dañu mérité remerciement et encouragement di leen wax rek la lutte continue mhm. mbir mi yamul fii bu ñu génnee au sorti des résultat ñu toogaat jàppal dem horizon 2024 et de horizon 2027. merci beaucoup. je vous remercie.